asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di amati mbégte ak bànneex di jàkkaarloog yéen ñi nga xam ne yéen safoo télé bii di Tawfekh TV waaye rawatina nag seen émission bii di Sabilu Najaat yi tey nag ñu ñëw fi nga xamante ni si moo di Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar duñ leen ko wax xam naa ne miin ngeen kees xam ngeen kees bu baax a baax te saa yu ñu nee Cees rek xel yëpp dina dem ci ki nga xamante ne si mooy Serigne Xaadim borom Tawfekh nekk na koo xamante ne si kenn dootu ko présenté ti kenn dootu ko ni sëñ xaadim yow yaay kan wala sëñ xaadim fan la bawoo wala yow yaay kan déedéet ndax loolu yi lépp yéen ñëpp xam ngeen ko ginnaaw nag bi ma leen nuyoo ba pare dama leen di bàyyee ki nga xamante ne si mooy sëriñ xaadim mu nuyoo ak yéen sëriñ xaadim nuyu naa la ah, maa ngi leen di fay bu baax maa ngi nuyu ñëpp képp koo xamante ne rek ah, yaa ngi suivre sëñ xaadim ak site bi nga xamante ne mooy Tawfekh TV rek maa ngi lay nuyu baax di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal wér ak sutura ak ñëpp di ñaanal Sénégal jëm sa kanam di ñaanal tamit suñu équipe bi mu mën a jëm sa kanam waaw. macha allah sëñ Xaadim comme ni ma leen ko waxee rek tey duma leen ko présenté yéen ñi miin seen bi di taw Tawfekh TV ku nekk xam na fi ki nga xamante ni mooy Serigne Xaadim kër gi da ko def comme këram saa yuñ ko soxlaa dañuy ubbil ay buntam ba tax na tey moom la ñu dalal fi ci taw Tawfekh TV nee naa ko ci képp ku am sa émission yaa xam lu mu mënti doon boo bëggee mu siiw rek jaarale ko fii ci Tawfekh TV. sëñ xaadim dañuy ñëw rek directement ci question yi nee naa leen tey duma leen ko présenté ndax xam ngeen ko kan mooy sëñ xaadim sëñ xaadim ku nekk xam na ne fi mu nii Sénégal am na fu ñu toll muy ci football bi dinañ ci ñëw waaye dafa am lu ko gën a am solo tey ku nekk ñaan nga yàlla tey soo feebaree am foofa yow te léegi nit ñi da ngay gis koo xam dala naa man bu doon xaalis ay tax ma wér wér naa ndeysaan dañoo xamul fan la ñuy fajoo rek waaye ay ku ci ñëw Tawfekh TV ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di nga wér te di nga kontaan sëñ xaadim ci feebar yi lay jublu ak yow surtout yi sonal nit ñi léegi lu ci mel ni ndoxum siti sonal na nit ñi lool sëñ xaadim waaw loolu ak sant rek la loolu yëpp nga wax noonu ak sant rek la sëñ xaadim mooy ki nga xamante ni rek mooy doomu Thiès di doomu Sénégal di international waaw ah, sëñ xaadim di yëngu ci wàll li nga xamante ni moom mooy ñaan waaw faj ak ñaan ah ci lépp ci li mu koy def rek ci dëgg la koy defee ci fulla la koy defee ci fayda la koy defee ci ñaan mooy ci ni comme li nga wax loolu rek ci wàllu ki nga xamante ni dafa amee ndoxum siti ci ki nga xamante ni dafay amee feebar boo xamante ni mu ngi sa yaramam rek di daw mm-hmm. muy hémorroïde mu tout le feebar mm-hmm. boo xam mu ngi sa yaram mm-hmm. incha allahu rabbi boo seetee ki nga xamante ni mooy suñ xaadim wala nga woo ko dinañ ko xool jàppale la bu baax a baax a baax ba nga xamante ni incha allahu rabbi garab yi ñu lay jox rek boo ko utiliser di nga ci gis sa bopp bu baax a baax ndax yàlla rek moo fi ne sa yàlla rek la ñuy ñaan sa lépp yàlla suñu borom la waaw lépp yàlla suñu borom la boo gisee ñu njëkke ci ndoxum siti peut-être feebar yi bari nañ waaye mm-hmm. boo gisee ñu njëkke si ndoxum siti li mu mën dafa bari mm-hmm. tey da ngay gis jigéen ñu taxaw ñu ni kii lii nga gis góor goo xamante ni si day dem ba day wàññi kàttanam mm-hmm. maanaam ni mu waroon a fonctionner bu nekkee ak soxnaam du fonctionner noonu ba pare tamit ñu dégg ni loolu noonu da nga ciy yëngu sañ xaadim bëgg nañ nga ñëwal ñu foofu ndax góor ñi bari na ñoo xam ne am nañ tawat boobu waaye tey rus nañoo toog ak seen i wayjur di ko jàmbat wala seen soxna sax bi ñu nekkal dañuy am kersa pour waxtaan ci ak moom te feebar boobu daf leen di dal waaw loolu moom dafay bari trop feebar boobu feebar bu bari la hmm. muy feebaru impuissance ñi nga nga xamante ni day ñàkk kàttan ci wàllu sëy hmm. loolu bari na trop jamono bi toll nii dal góor ñi ñu ci bari nag da di dal ah ñu koy sooxaale rus ko wax sa hmm. dama jàpp ne feebar bu la dalee amul loo ci war a rus a wax danga ko war a weer pour feebar boobu mën a saafarawu xam nga am feebar boo xamante ni da ngay sëy di gaaw jot sa bopp moo xam awra danga nga tële moo xam awra bi nga am dafa gàtt bépp loo xamante ni dal na la ci ci wàllu sëy ngay góor mhm. incha allahu rabbi boo diggaale ak sëñ xaadim ci kàttanu si borom dina ñaan yàlla fajal la ko ba mu tàggoo ak moom yàlla mooy li may wax rek yàlla rek moo mën mhm. waaye tamit ah, ci wàllu ñaan ci wàllu feebar bu yooyu nga lim noonu mhm. yàlla am na lu mu ci dimbali bu baax a baax a baax a baax ba ñoo koy defal askan bi askan bi di ci gis seen bopp askan bi ci yëg seen bopp ko kooku sant la waaw. waaw ba tey foofu la ñuy resté waat rek ndax tey comme wax nga ko léegi ci say biir wax ki nga xamante ni si dafa néew kàttan naam am na waaye da ngay xam gis ki nga xamante ni si maanaam yàlla may na ko am na kàttan mais awraam na mu waroon a bindoo bindoowu ko maanaam dafay ndaw. waaw loolu tamit dafay am comme li ma ko yàgg di waxe rek yàgg naa di ko wane. si mm-hmm. ah, wàllu bant yi yàgg naa di ko ci wane. ma ni leen ah, ci wàllu koo xamante ni góor goo xamante ni da nga amee awra bu gàtt ci kàttan si borom boo dikkee ci xaadim mu suñu xaadim mu yokkal la ko sa du la jox nga naan garab nga naan du la jox garab nga diw kooku ndimbalu suñu borom la yàlla moo ko def ci ñun ba nga xamante ni képp koo xamante ni amee nga awra bu gàtt foo munti nekk ci àdduna di ma seetaan boo ma contacté ci numéro téléphone yi daw ci ecran bi incha allahu rabi ñu jàppale la bu baax a baax a baax bëgg a gis sa bopp bu baax a baax a baax a baax foofu tam bëggoon nañu xam maanaam tey boo ko yokkalee awraam day nekk loo xam ne toujours day lëfar lëfari ak moom wala moom bu waree jote ak soxnaam rek foofu la awra bi di yokkoo wala. waaw bu waree jote ak soxnaam rek si la awra bi di développé wu si génn tol noonu waaye boo utiliser wul defoo dara moom awra bi day dellu place am mel na mu meloon noonu lay def repos normal waaye boo demee ba nga xamante ne soxla nga ko pour def sëy pour sëy def rapport ci la awra bi di génn. tol nu mu war a tol ba nga mën a sëy ak sa soxna. Ah, mën cee yëg sa bopp déedéet déedéet déedéet moom sa moom à lay doon ak yow. bu ñu la ko defalee à lay doon. Mhm. waaye duñ duñ la ko yokkal nga yaakaar ne day mel noonu sa biir tubay. Mhm. déedéet bu ñu la ko yokkalee boo ni ngay xamee ne yokkal nañ la awra bi kii na boo demee bay def rapport si ngay gis awra bi. Mhm. tol comme ni nga tànne woon bant ba bañ lay yokkal noonu ngay gis awra bi tol ko. sa lu ama am la lu wér a wér la. bañ ko dalee ba liggéey ba léegi yàgg na. ñong koy defal nit ñi façon nit bu nek defal nañ ko ko ñong ci yek seen bop ñaan nak ñaan yalla rek lañuy def fajj da ngay fajj ki day wër nga fajj ki du wër lepp ci yalla suñu borom la waye ma ngi ñaan yalla suñu borom kep ko xam te ni boole nga maag mom boole na maag mom bu mu ñew dina ñaan yalla mi maye ba nga sa aaju mëna faju ndax lepp suñu borom la fi mooy Tawfekh TV dañuy laaj ba mu leer ndax yeen ñu ñi seetaan rek yeen ñu taxajuk bëgg nañ lepp luñ fi wax rek mu nekk lu leer waaye nag mbaa du am benn effet secondaire comme tey indil ko dara si wàllu wér gi yaramam wala dara. déedéet loolu du am benn jafe-jafe du la indil benn problème. Mhm. ci ki koy def du ko indil benn problème. waaw mhm. ah, parce que laaj boobu tamit nga laaj dafa jar laaj ndax des fois nga gis ku la mhm. ne la ce que yokk awra su ma ko defee après du ma indil problème. wala après du ma indil benn jafe-jafe. déedéet yokk awra buñ ko defee du la indil kenn problème du indil kenn jafe-jafe sa moom à vie lay doon ak yow. bu ko xasee def noonu lay continuer boo demee ba am âge de soixante dix ans mhm. mën ko koo def boo seetloo ni yow yaa ngi tële mhm. sa aw moom da nga amee woon force mu ngi wàññeeku mhm. boo ko defaatee tamit day gën a doole day gën a yokk so du indil benn jafe-jafe yokk awra daal li ma la mën a tënkal mooy yokk awra bi daal moom képp ku ko ko def di nga ci gis sa bopp baax a baax a baax ndax lu am solo la lu bëri njariñ la kon ñoo ko déggandoo yéen ñii seetaan yaakaar naa ni leer na waaye ndax ki nga xamante ni si ki nekk Sénégal rek nga ciy jëflanteel ndax yaakaar naa ni Tawfekh TV télé ñëpp la ñëpp a koy seetaan tey ki nga xam ne tey dafa nekk bitim réew problème boobu dal ko tey mu bëgg koo saafaraw kooku ndax di nga jëflante ak moom ki nga xam ne nekkul Sénégal pour mën a ñëw ba si yow lu dul ni dafa nekk bitim réew ndax di nga jëflante ak moom. waaw incha allah ki nekk bitim réew damay jëflante ak moom ah, ki nek senegal damay ak mom. Ya xam fepp fo muñu nek ci aduna bi dañ ko tej fepp fo muñu nek ci awra bi foo mën a rek waaw fepp fo muñu nek ci aduna bi mhm. ci kattanu ci borop dañ lay yokal sa awra nga gis sa bop bu a baax a baax sa bu la nexé duñu gisé lepp dañ koy def à distance dogal fa nga tok jox ma sa tour sa tour papa sa tour yaay ak ñaata at nga am mhm. buñu juboyé nga def appel vidéo whatsapp tan bi nga xamanteni ni moom nga soxla inshallah rabbi ñu ñaan yalla ba gis sa bop ndax ay katu yalla lañ say yalla suñu borom mo ne ñaan leen mo may leen sa dara tawul yalla dara tawul yalla suñu borom kon ñun yalla lañuy ñaan ku ñew dinañ ñaan yalla ba faj la sa aaju faju non la mbir mi demee wa ku nekk xam na ne nag ku wax góor wax jigéen ah jigéen ñi tamit léegi problème boobu am nañ ko de am na ñoo xam ne dañuy bëgg yokk ange ñii ween wala sëñ xaadim moom góor ñi rek la ci taamu bàyyi jigéen ñi déedéet du góor kase laa ci taamu bàyyi jigéen ñi mhm. xam nga nit ki da du taamu toog ci télé naan Jigen dama koy defal nii ndax parce que jigéen yàlla moo sutural jëkk suturaal mhm. kon dañ koy suturaal saay su ne mhm. kon tay ji sa jigen ñu mhm. kon duñu tok nan jigen ni nangam nangam dugg na fi gën duñ ko def waye jigen go xamante sentir nga ni kat bëgg nga yok sa forme bu rafet insha allah rabbi bo wowe sëñ xaadim sëñ xaadim dina la wax ni ngay def bañ yok la sa forme mu rafet sa du am ben effet secondaire sa duma la jox garab duma la jox dara lepp damay ñaan yalla suñu borom ba yalla dimbalé ma sa aajo mëna faju waaw lolu leer na kon tey jigéen ñi moom seen coono jeex na ndax yaakaar naa li ngeen doon jooy tey am ngeen fu ngeen koy faje te joxuñu leen ñu ngeen naan joxuñu leen pour ngeen diwu kon loolu leer na ba tey sëñ xaadim ku nekk xam na ni jamono ji ñu nekk jamono ju metti la soo bëree ñu bëre daanu sa kaw boo bëriwul ñu bëre daanu sa kaw tey su ma waxee loolu ci côté mystique bi laay wax da ngay gis ki nga xamante ni si ndeysaan yaayam da koo jur am ci moom yaakaar fayal koom jàngam sonn ci moom lool kooku xëy dem ba am wan ko ginnaaw ñu ni lan ñu ni dañ leen a dëddale te yaayam ji ko sukk jur lay doon sonn ca moom lool sëñ xaadim bari na lool ci jamono ji ñu nekk dëddale nit ki ak ndeyam baa nga dëddale ko ak baayam yaa xam wala soxnaam da ngay jur sa doom sax ñu dëddale la ak moom sëñ xaadim waaw loolu moom am na ndax am na si ñu bari dañ koy def muy wàllu dëddale boobu dangay gis koo xamante ne day fekk diggante bu neex mu yàq ko dëddale leen bas ku nekk séparé wu dem waaye ci kàttanu si war ki nga xamante dañ la ko def da nga am doom ñu def la ko sa diggante yow ak sa doom wala ñu def la ko sa diggante yow ak sa soxna wala bu dee jigéen ñu def ko ko diggante moom ak ki nga xam mooy borom këram na xam te aajoom faju na ci kàttanu si borom wàllu dëddale incha allahu rabbi am na liñ ci yàlla may loo xamante ni képp koo xamante bu ñu la dëddalee ba séparé leen bu ñu ko jëree tax bàyyi ko mu naaw ba nga xamante ni yow do gis ko ak gis bu titam nga yemale incha allahu rabbi dinañ leen boolewaat ba ngeen xam ne kenn dootul mën a dugg seen diggante ndax ñu ay katu yalla lañ dañuy ñaan yalla sa dara tawuñ ci ñaan ndax lepp suñu borom lañuy ñaan ki bëgg place. waaw ak place mu munti doon rek. bo bëggee place mo xam bay rek moo xam lepp lu munti doon incha allah rabi dina ñaan yalla ba yalla jubóole ñu incha allah. waaw ndax ñaan moy suñu liggéey. Mhm. ñaan moy suñu liggéey. kon lepp lo xamanteni laaj nako ko dañu koy def ñaan moy sama liggéey moy limay wax yag di wax rek. kon lépp lu mu laaj rek dama koy def ba yàlla dimbali ma bu baax incha allah. am na loo xamante ni si film nii sonal na xale yi jigéen ñi da ngay gis jigéen macha allah mu taaru mel na mu war a mel waaye borom kër da koy të ñu ni kooku lu ko dal ñu ne dafa am faru sonal na jigéen bu dee góor ñu ne dafa am coro mel na na mu war a mel tabax na këram macha allah meuble def lépp waaye mënul am benn jigéen bu ko fa toogal ndax lan dafa am coro rab bu dee jigéen ki dafa am faru loolu jamono bi ñu toll ni dafa bëri da gis jigéen soxna yi macha allah mel nañ war a mel toog waaye mënuñoo am borom kër ku ñëw ci ñoom góor gu baax ko am daraja day ñëw ba egsi wax ba ñoom ñu am yaakaar kooku bu demee du ñëwaat ba am na si ñoo xam ne dañuy jàpp naan est-ce que liggéeyuñu ma fekk ñu ci bari liggéeyuñu leen lii nag moo koy def soit que dangay amee àndandoo bu nekk ci yow muy wàllu rab wala beneen bi muy nga xamante ni moom mooy wàllu cat cat da koy def cat mën na jàpp jigéen ba nga xamante ni góor bu ñëw ci yow rek dootul ñëwaat loolu da cat da koy def wàllu rab tamit da koy def ñu bari tamit dañuy toog da wax waxi rab sax xamuñu lan mooy rab ndax man toog naa fi benn plateau bu mag ma wax ci ci wàllu rab am ñoo xam génn na ni loolu amul ni rab amul jinne moo am sa boo xoolee kay wax loolu dafa xamul rab mooy jinne boo ko waxee nag dañ koy weddi mm-hmm. wala ñii dañ lay réeral naan la rab nangam wala jinne bi amul wala rab mu am lu kenn xam waaye rab mooy jinne benn bi la benn mënul dem bàyyi sa morom mag njëkk ñoo daan toog comme exemple nga ni rab ndax parce que ni ngay jàppee jinne ji day am noo ko def loo xamante ni rab nga koy wax rawaxaan moo dugg rawaxaan boobu léegi moo tax ba nit ñi naan rab mm-hmm. noonu la mbir mi demee waaye benn la mm-hmm. rab mooy jinne ndax rab jinne jooju mooy dikk dugg ci yow comme ngelaw mm-hmm. nekk ci yow di la manipuler di la yàqal mooy jinne mooy rab noonu lañ koy tuddee loolu la waaye benn bi la Rap moy jinne lolou képp ku tok nga koy weddi mhm. ni li seigne khadim wax amul mhm. boo mu dikkee mo wala ci lu leer ndax lu xam la tebuma teb diko wax man nee ci walu ci ak walu rap yalla dañ ci dimbali ndax parce que sama mam moko daan def yor guuy go xamante da ci dëkkaloon jinne kon lo bo leen gisee may nek ci guuy yi dangam nang guuy du hasard de sëriñ bu ñimee nako def na dem ci guuy wala na dem fanen ak fanen heure buma neex mën na ko dem ci guuy ndax dama xam lu nek ci guuy sama maam dafa yoroon ay guy dëkkal ci ay jinne di ci faj di ci def faj soxlaam di ci faj aajoy jaamu yàlla yi loolu moo tax ma nekk ci guy yi kon tëbuma tëb nekk ci guy kon wàllu xam-xamu jinne yàlla dimbal nañ ci bu baax ba lépp lu ñu ci wax rek am na lu tax ñu koy wax ndax parce que da ngay gis koo xamante ni day am bar rabam bar lay doon ñu ne kii la nga gis koo xam ne rabam mën naa jàpp ab jaan mu ni rab la ndax parce que léegi boo xool nit ñi dañuy dem léegi ba dañuy pratiquer dañuy kii créer ay ay rab ak yooyu mhm. dañuy gis ku yor ab muusam tax ni muus mi rab la mooy sama rab mhm. sa muus mi muus rab la dëgg la rab la waaye taxul ñu naan kii muus mi jinne la mhm. wala nga jëkk yor wut a dem fee luyee fa benn jaan wala wut ab jaan yeew lëmasoo ni kii mooy sama sama rab bi pour lan pour nax nit ñi loolu nañ ko bàyyi képp koo xamante la ngay wax maîtriser woo ko jaru ko koy wax sa li sëñ xaadim di wax ni di ko génne lu mu maîtriser la lu ma xam la tëbuma tëb di ko wax tëbuma tëb di ko def noonu la demee waaw ku nekk xam na ni góor ñi bëgg nañ tukki waaye visa da leen a jafe hmm. ndax di nga leen ciy defal ñaan mu gën ñuy jaar ci yoonu suuf bi bëgg a am ci kayit bu leer bi jaar ci yoon bu leer bi ki bëgg loolu ndax di nga jëflante ak moom waaw xam nga maanaam ki bëgg a tukki ba mu jaral ko muy jaar ci yoonu suuf bi hmm. bu doon ak sagom du jaar ci yoonu suuf bi day dem jël vol dagg ticket yéeg ci vol bi toog vol bi naaw ba àgg fi mu jëm mu taxaw wàcc jël taxi dem hôtel wala mu dem këram togg waaye ñàkk pexe moo tax nit ñi di jël vol bi di jël gaal gi di ci dugg xoola risque yooyu nga gis ku jël gaal dugg ci gaal gi gaal gi risque bu ne mën na cee am sa lekk jeex sa ndox jeex dara lépp jeex ngay gis ay nit di dee ñu leen di sànni ci ndox mi nga risqué loolu ba dem metti na kon kooku ko ki def loolu bu doon ak sagoom la du ko def xëy na ñàkk pexe moo tax muy def loolu waaye nag lépp ak gëm yàlla la lépp ak dal la da ngay ñaanlu sa jaar fa nga a jaar ba yàlla dimbali la nga tukki ah man de maa ngi ñaan képp koy def na ko ndax yenn risques yi ngeen di def ni baaxul lépp nag bëgg a tekki rek moo tax ñu koy def bëgg a tekki rek moo tax ñu koy def pour dimbali seen i waajur yi koo gis mu koy def xalaatal ni bëgg naa dimbali ay waajuram loo tax mu koy def waaw. macha allah tey tamit di nga gis jigéen macha allah ñu takk ko mu ñëw sëy si kër gi. nekk fa ak ay moroomam moo xam wujjam moo xam ay wujju peccorgoom ay nawleem ci biir kër gi dafa ndoog ñoom foofu fukki at wala fukki at ak juróom ñëpp am doom ba mu des moom amaana sax dañ ko koy walé ku ci tëgal doom mo ngi ko koy walé donte ni nak sey kenn duko ko ci sey doom kenn duko ko ci sey yalla rek mo koy maye waaye tamit parfois sabab lo sunu borom jappalé la jigen ji sey tam te meunta am doom nak wa mbir suñu doom mom mbir suñu borom la waaye moy limu wax sank rek yalla lepp lu muy def rek da koy jaale def ci jaamam yi ñun ay kat lañ bo set ci ku mel si xaadim nga tok taw sëy nga lu yag tok nga fukki at wala juróom-ñaari at. amagoo pant fu ne nga dem fa fu ne nga dugg fa lu ne nga naan ko boo dikkee dinaa ñaan yàlla suy borom xool lal la moo la dal bu dee wàllu àndandoo moo la dugg wala am na ngelaw bu la dugg di la yàqal dinañ dàq loolu ñaan ko bu dee tamit du loolu yëpp du ci dara mbir suñu borom la dinañ ñaan yàlla suñu borom bi nga xam moo may maye toog ba yàlla def jàmm incha allah ndax lépp yàlla la bu ma ñaanee mu am yàlla la su ma ñaanee amul yàlla la. foofu laa teg samay lépp yàlla la waaw ah, tey nag gis nañu lenn loo xamante ne fi mu ne yi jël nañ ko lool muy tiktok xale yi ku jóg yaa ngi ci ku nekk nag ak façon ba la yàlla bindee ñii ñu ngay sol la leen neex ñee ñu jékki-jékki gis ni mën nañ ne nag lépp yàlla la comme ni ko sëñ Xaadim di waxee. lépp yàlla la waaye gis nañ ne ndaw ñi ñu dem dem bu gaaw am ñii naan moytu leen tiktok bi ñii naan lii ñii naan la lale loolu tamit sëñ Xaadim lan nga ci mën a baaxee ndaw ñi nga xam ne ñoom dañoo jël tiktok rek def ko seen àdduna ah xam nga TikTok day fara day day phénomène boo xamante ne lu bees la rek. lu nit ñi jël la. sa amaana ah, ñi nga xamante ne ñu ñooñu ci ëpp expérience tax nekk bitim réew tax jëlewuñu ko comme ñun sénégalais yi niñ ko jëlee muy nasaraan si jëlewuñu ko noonu tubaab yi xamuñu loolu liggéey la def wala bu ñu ko xamee tamit liggéey lañ ciy def fii nag xam na lañ koy def pour tooñ xamal nit ki lu ñaaw. toog weer ko jël ay photo wala jël ay vidéo dugal TikTok posaare ko yàq deram waxal ko lu ñaaw di saaga nit ñi di def na ko sa loolu képp ko bàyyiwul yaa ngi ci danger ndax amaana mën nga tëkku nit wala nga waxal ko lu ñaaw wala nga jël photom photom defal ko dara yow mi ko dugal bu la xamee mën na laa yàq ba faw loolu moo tax ñu naan TikTok bi am na yoo xam day rey wala am na yoo xam day def ndax suñu doom loolu la sa dafa am loo xam ne nga ngay doomu aadama di rawatina ngay jullit nga dul ñàkk doon jullit dafa am loxo warul kenn tiktok kaf agré la waroon doon kaf agré la waroon a doon réseaux sociaux waaye léegi dootul kaf agré pour yàqante la ko nit ñi dugal tey jii nit da lay xamal léegi léegi léegi du dara gaawantu na wut sa photo wut sa yi ñaaw yooyu nga def say audio transféré ko monté ko sànni ko tiktok pour àdduna jot ci léegi ñu wasaare la yàq na loolu baaxul nit du def loolu doomu aadama dañu def loolu kon li may conseil nit ñi mooy moo xam xale nga moo xam mag nga moo xam koo mënti doon na nga teey xam ni TikTok dama na laa sànq na nga teey rawatina tamit ñi nga xamante ne xale yu jigéen ñi ñu ciy def dafa ñaaw TikTok bu njëkk ba da nga daan toog sa doom nga toog bës sa téléphone di seetaan ak say doom léegi mënatoo ko ndax li tax mënatoo koo seetaan ak say doom mooy lan liñ ciy def yuy ñaaw yi ay waxante yu bon ay di dugal yu bon ay notaal yu bon lañ ciy dugal pour lan loolu dafa xaraam sa nit ku nekk waroo def loolu boo koy def war nga koo def ci beneen anam waaye di ko def ci loo xamante ne ku si nekk mën na ko jot loolu baaxul loolu daal laa ci lancé message daal képp ku ci mën a daw ku ko mën a daw daal na ko daw wala boo ci jëfandikoo nga xool ni koy jëfandikoo mu am ngeen bàyyi saaga yi ñi ci nekk di saaga ñi ci nekk di yàq der dañ ko bàyyi ndax nday gënul nday ñun ñëpp ay nday jigéen moo nu jur waaye nga toog jël jigéen ni yow kële jur taxaw di ko saagay nday wala di ko waxal lu ñaaw loolu baaxul jullit bi def loolu ku dul jullit tax waru la sàkkantumaa ngay doomu jullit waaw loolu daal laa amaloo ci sànni waaw. Ah, mu mel ni tamit am na feebar boo xam ne nee nañ seytaane da cee muy ban façon feebar la muy tension ndax dangay gis nit ki léegi fu ñeen ñi rek ñu ni fàdd na ko AVC na tension ñu ni rab moo ci am est-ce tamit dañ di fagaru moo gën faju amul li nga xamante ni si tey nit ki bu ko jëfandikoo tey bu yàlla tuddoon ni dina am feebar bi di ko dal mais mënu ciy jëlee AVC. waaw AVC moom feebar bu ci nekk rek ci yàlla rek lañ jógee waaye am na loo xam ne ak sabab la waaw mooy li may wax rek AVC ñu ci bëri am na suñoo xam ne da leen di dal wàllu rob da leen di dugg daf leen loolu fàtt leen fekk dañuy amee feebar bu nekk ci ñoom rek tentation rek rab bi du fekk amee nañu àndandoo mu ndikk dugg leen ñu amee ko seen yaram xaw a paralysé wala seen gémmiñ xaw a mooy ñu ne paralysé na jeex na commencé faj si faju faju faju tubaab bi bëri na si ñoo xam ne loolu moo leen di gën a sànq nit ki bu la dara dalee da nga ko war a xool nit ñi nag lu tax ñuy ragal mooy maamanu léegi yi sëriñu léegi yi sëriñu léegi ku jug day woote fëgg dënam sëriñ laa damay faj rab sa sëriñ ci ci bëri nekk ci internet bi yii rek la ñuy wax rab cet rab cet rab moom sono nañ ko ñu ci bëri sa man li ma ci jaaxal ñu ci bëri xamuñ lan mooy rab ku ci toogoon laa la sa tëju sa néeg ku ci tëju woon sa néeg ku ci tëju woon sa néeg waxuma a rab tax waaye ab gunóor dëkk naaw tuggee la rek gunóor bu la xaw a jaaxaan tam mm-hmm. di nga dangay fel bont bi génn sa boo jugee naan rab rab rab rab rab ba kañ sa xamul luy wala ñuy maye ay yoo xamante ne la ñuy maye xam maîtriser wuñu ko xamuñu ko nit ki loo xamul bul ci dugg rab bu dee danaa dal demal ci ñi nga xamante ne xam nañ ko ñu dindi la ko faj la ñaan ci yàlla mu wér waaye di toog di la xëpp ay ndox naan noonu la ñuy faj rab jël seen am na si ñoo xam ba dañuy jël ay sase ndox mm-hmm. jël ay seringal mm-hmm. seringal yi def ci kaani yi ba mu affaire bi mooy loolu wala ñu def ci ay diluant. di ko di ko def ci biir léegi boo dikkee dañ la koy sotti ci bët buñ la ko sottee ci bët rek nga toj ko commencé wala ñu dikk di la bës di la nekk def la ñu yoo xam te ne la jinne ji araftu la wala ñu jël ay di leen fay pour leen pour ñu defal leen promo vidéo ñu ne dañuy faj rab kii moo mën a faj rab déedéet rab kenn ko faje noonu rab bul yaakaar da ngay tëg da toog caméra yi tiim la nga naan nit ki dàngam di ko faj mooy leen déedéet rab deful noonu faj boo gis dafa am sutura faj sutura la nit ki ñëw na am na feebaram wax naa la am naa feebar bii moom daal dama amee àndandoo lay taale ay caméra daan na koy faj mën nga ko dugal ak moom si roq ñaan ci faj ñoo ngi faj mu deñ mu génn dem su wéree bu dee promo ngay bu wéree di nga am promo ndax parce que koo fi mu wér bu génnee bu naan diw moom a faj lay toog say caméra wër la nga toog naan da ngay ndox wala da ngay jaagar jaagari amul sens loolu fajum rab nit ñi dañ delluwaat suyu borom xam ni dëgg rek mooy dëgg nañ bàyyi naxa bi bàyyi ci kaw nit ñi ñuy jaar loolu laa am li may wax waaw. man tamit feebar bi di hémorroïde sonal na nit ñi rawatina chauffeur si wala tailleur yi nga xam ne dañuy yendoo di toog moo xam bi génn na wala bi nekk ci biir sonal na nit ñi lool muy hémorroïde. léegi àdduna léegi jamono ji léegi xam nga la moo so sonal nit ñi. Mhm. li ci gën a bëri. Mhm. lu ci bëri majeure partie. Mhm. da ngay toog nit di waxtaan ak nit tax da ngay rus biir bi na xor. nga dem. ñu ne la hémorroïde la yëkkati ay garabu sunguf jox la ni la am naanal bii defal nii ngay naan ngay jàmb sunguf yeeg reen yee daqaar yeeg lu ne dañ koy jàmb naan ko muy gën a infecté bu nga biir buy ballonné bu la dalee lenn boo ci gaaw del naan ndox mu bari del naan ndox mu bëri heure boo xëyee suba naanal ndox boo xëy soo bala ngay naan café bala ngay lekk dara naanal ndox di naan ndox mu bari loolu moo ci nga xamante ne moo ci gën a gaaw waaye du caagi ne da ngay dem ci ku mel ni sëñ Xaadim ma yëkkati ab sunguf jox la nga jël sunguf boobu di ko naan sunguf boobu dalay dalay dalay lor la yàgg naa di ko wax garabu sunguf dafa am garab ba cay faj ak ba ci dul faj am na garab yoo xamante nit ki day feebar dem ci sëriñ fekk da cay jëla loraange ci boppam waaye loolu képp ku mu dal wàllu biir bi bala ne deel naan ndox mu bari boo xëyee bala ngay def dara naanal potu ndox naan boo dee deel naan ndox mu bëri rek ci kàttanu si borom léegi nga tàggoo moom comme yàqkat yi ndax feebar la boo xam te biir la nek si biir la nek da ngay jékki-jékki jékki moo ngi mel ni benn affaire rek nga xool gis biir loo xamante bu kiiwee. da ngay day frotté day yuuxu ay butit la da day tàng lépp da day naan ndox mu bëri waaye boo dul naan ndox wala sa lekk bëriwul mooy loolu. léegi nag bu la dalee nga dem ci ku mel ni man ba nga lekk sa xaalis danaan la émorite moo la dal yow lii lu bon la wala ñu la feebaru saytaane la am na ñoo xam te dañ naan la feebaru saytaane la ngelaw moo nekk sa biir bi defal seen affaire yoo xamante ne boo dikkee sawaay dañ gëlëmal seen i ñengo yoo xam dañ naan la lii laa génne sa biir pour lan lor jaamu yàlla yi loolu baaxul waaw. comme yàqkat yi bari lañ ndaxte dangay nekk yow di liggéey macha allah am li ngay bëgg nit ñi di la galgal fii ñi di la daaneel fii ndax nit ki mën nay ñaan lu ci boppam waaye jógul pour def kenn lu bon nag waaye aar boppam ba ku ko laal wala loo ko sànni day mel ni dalu balu tañ si day delluwaat ci yow. gis nga soxna si loolu du jug ci réew du jug ci àdduna bi. defante lu bon yakante bi man mi di wax ak yow ni di yëngu ci walu ñaan di ñaanal nit ñi amna ci ño xamanteni man lañuy ñuy gis dama la ko wax misal amna bari na ño xamanteni man lañuy ñuy gis sakantuma kenen ak kenen ak kenen lo tax nit ku nekk mo aadama bu nekk nga war di fagu sa bop bu ni mystique amul ñaan amul ñepp yam dedet bu wax loolu chaque jour war ngaa mën a xool di defar sa bopp di muslu sa bopp di ñaan koo xam si yaakaar nga ko nga dem wut loo xamante ne kat defoo dara lu bon waaye da ñàkk sa tool ndax parce que tey jii boo teg génnoon ci biti fii ci kaw tali bii nga yëkkati teg ko foofu nga ne naa ko yàlla boo duggee ci biir boo génnaatee doo ko gis nañu waxante dëgg. kon am na loo xam booy dénk sa bopp yàlla dafa am looy dénk sa bopp yàlla da ngay ñàkk sa bopp ba pare doo ko dénk sa bopp yàlla waaye aaroo sa bopp defoo dara bàyyi sa bopp rek. mel ne xaal ku la romb lu mu la sànni da lay dal sa nit ñi dañoo war di daaw loolu nit ñi da leen aar seen bopp da leen sànni seen yaram yi da leen muy defante bi dafa bon léegi yàqante bi des fois nit jóge fu sori ñëw ci man sëñ xaadim damaa bëgg nga defal ma kii nangam nangam wala sama dama sama doom wujj bi nangam nangam sama yàlla dimbali na ma du yàq nit du ma def nit lu ñaaw képp koo xamante ni yàq doomu aadama mooy tax mu ñëw ci man soxlawu ma la jarul ngay ñëw ci man maa ngi waxtu wi nag xam naa ne moo ngi tàggoo kon maa ngi jaajëfal ñëpp daal waaw sëñ Xaadim duñ la bàyyi nag ndax ku nekk xam na ne match Sénégal bi suba la. Mm-hmm. ah faaw nga am loo ñu ci wax rek ndax bii paase gisoon nañ te xel yi daloon na amoon nañ ci yaakaar bi nga waxee te macha allah yàlla mujj na àntal lépp ah bu suba bi nag. yow waaw match ah, dinaa ci wax waaye heure jotagul. ah jotagul. Ah, ndax ah, daanaka tey damay dem àll ba. Mm-hmm. sa allah ci guy gi. Mm-hmm. am na ñaan yu may def foofu ci guy gi. pour équipe bi am na sarax yu may defal foofu. équipe bi pour ci guy gi pour yàlla dimbali ñu ñu am ndam ñaankatu yàlla naa nag damay ñaan yàlla damay ñaan yàlla suñu borom bu gënee ci ñun yàlla nañ ko yàlla jox muy coupe du monde bi équipe bi ñuy fu football nii fekkee gañe ko day gën ci ñun yàlla na yàlla def ñu gañe ko loolu daal laay ñaanal si réew mi yëpp réew mi am jàmm waaw gis ngeen ko tey fii si Tawfekh TV ki nga xamante ni si moo di Serigne Khadim borom Tawfekh tey moom lañ fi dalaloon ah dégg ngeen kàddu yi mu wax macha allah duñ ni guleet ndax lépp lu muy wax rek yàlla lay jiital kon yàllay kese la yàllay kese kese kese la ndax yàlla moo ni ñaan leen ma ma may leen waaw te jullit eh, ñaan mooy gàllaajam ah ñu doyal mukk nag ci moom waaye waxtu bi dafa xëccu jëm ci jeex ba tax na dañuy tàggatoo rek tàggatoo bu dul tàggoo ba beneen yoon incha allah di gërëm ki nga xamante ne si mooy sama caméraman di Youssou ak sama technicien bii di leen gërëm loolu nag waxukaay gi nag ki ci nekkoon mooy seen xarit seen soppee Ndeye Astou Ndiaye ah télé baa ngi noonu di seen télé képp koo xam ne am nga programme rek ak loo mënti bëgg ak foo mën a nekk rek dinañ la fa fekk soo ñu woowee si numéro yooyu nga xam ne mooy daw ci bande écran bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu